voilà très bien Issa bëgg rekk nga defal sa présentation wax ñu tamit ci jafe-jafe bi nga xam ne euh, amoon ngeen ko ci foofu ci zone sud ak li nga xam ne saafara la monsieur le maire indi ko ci di Momar Ciss. oui salaamaaleykum euh, tout d'abord maa ngi nuyu waa Actu Thiès ci li ñu permettre tey ci seen temps bu xat mën ñoo apporter benn mën ñoo bay benn temps bu ñu mën a wax ak la population de la commune de Kër Moussa plus précisément dans la zone sud. Euh, je me présente, je suis Isaka, chargé de communication de la Cogère communale, responsable politique à Thiamboch dans la zone sud de la commune de Kër Moussa. Omar comme ni nga ko waxee zone sud de la commune de Kër Moussa récemment dañu doon dund benn jafe-jafe boo xamante ne dafa nekk ci wàllu ndox ndox nekk loo xamante lu précieux la lu indispensable mais. ñu am problème ci forage bi ak euh, comité de gestion bi fa nekk boo xamante ne ñu leeral ko euh, comité de gestion bi dafa nekk loo xamante ne population bi ñoom ñoo leen fa teg du maire du benn politicien mais la population ñoo leen choisir teg leen fa pour ñu saytul leen forage bi ñu dawal nag euh, ci seen gestion ñu am benn bor amal ko waa seen o à hauteur de 9 millions bi mu amee monsieur le maire Momar Cissé ngoo xamante ne jafe-jafe population Kër Moussa mosu koo tànqam lu moom moo jóg def ay pexem ba lijjanti sur fonds propre fay 9 millions yi pour que ndox mi reprendre ndox mi bi mu ñëwaatee terewul am na ñoo xamante ne comme ni nga ko waxee ay opposants lañ man ay politiciens encagoulés laa leen di tuddee dañoo jóg ñu ne dañuy def marche marche boo xamante ne ama grande surprise teewaayu Thierno Alassane Sall koo xamante ne il a été aux nekkoon na ci pouvoir bi. nekk na ministre ay yooni yoon mësul xam sax fu zone sud féete ñëw ba tey nekk à perte de vitesse ak repère xamatul fi mu jëm mu ñëw taxaw ci zone sud di financer ay jeunes mu ne leen kaay leen dox ñaxtu ma ñëw teew fa di jéem a attaquer le ak le régime. Thierno Alassane irresponsabilité mënul weesu mënoo exister fi nga dëkk. Thiès bi nga dëkk plus précisément jàkkay tukulóor fi nga dëkk Grand Thiès nga ne da ngay ñëw Kër Moussa pour jéem faa exister politiquement mënul nekk population bu Kër Moussa population bu yeewu la jeunes yu yeewu lañu te di xamal sama mbokk jeunesse zone sidd sama mbokk waa Kër Moussa ne du benn politicien mooy jóge àll ba ñëw développé ñu suñu zone suñu zone ñun ñoo koy développé suñu bopp ma xamal leen loolu te mënuñ koo def te àndu ñoo ci le maire ki nga xamante ne moom mooy daw matin midi soir pour njëriñu zone sud pour njëriñu population zone sud ñoom lay lancé appel di leen xamal ne du benn politicien boo xamante ne dafa nekk perte de vitesse wala perte de repère moom mooy jóge ci àll ba ñëw naan daf ñuy développer suñu zone la zone sud ñun ñooy mën a développer la zone te monsieur le maire Momar Ciss dafa nekk koo xamante ne ci loolu lay xëy ci lay gont pour loo xamante ne moom mooy développer la zone sud donc ce gars-là ne mérite même pas notre réponse mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy utiliser la jeunesse ñoom lañ lay waxal c'est de gens irresponsables irresponsabilité mënul weesu nga taxaw ngay gëmloo nit ki ne comité de gestion bi maire moo leen fa teg te amoo bi ñu koy fal sax bureau bi bi ñu koy fal maire yëgul population bi ñoom ñoo tànn comité de gestion bi ñu ne leen gérer leen ñu ndox mi li may terminer ci wàllu ndox mi nag di xamal ne population zone sud comité de gestion bi fa nekk ñoom ñoo ko fa tegoon en bonne et due forme comité de gestion bi nañ jël seen responsabilité ba jafe ndox bi ñu dundoon jamono yi passé ba maire di jël xaalisam di ko fay bu mu amaat ñoom nañ jël seen responsabilité bu dee problème facture moo wu ku fayul nañ jël seen responsabilité coupé la mais population bi mënuñoo continuer di dundaat lee mêmes problème foofu lay terminer ci wàllu comité de gestion bi. waa sir ce euh, en même temps je suis le coordonnateur de la convergence des éleveurs de la commune de Kër Moussa chargé de communication du bureau départemental dañuy amal assemblée générale le 22 à Pout 22 décembre incha allah au centre socio culturel de Pout ñu ngi ciy woo éleveurs yëpp. agriculteur yëpp ndax dañ ciy waxtaanee ñaari thèmes yu am solo relation agriculteur éleveur souvent tam di comment solutionner pleinement ces problème la dañ ciy waxtaanee aussi li mel ne jafe-jafe yi ñuy dund ci autoroute à péage bi manque de zone de pâturage ak feu de brousse ñu nekk thème yoo xamante ne moom mooy li éleveurs yi euh, agriculteurs yi di dund ndax éleveurs yi dañoo am problème mu espace présentement ndax àll bi amatul espace entreprise yeeg homme d'affaires yi ñoom ñoo ñëw occupé amatul benn espace pour élevage te askan wi éleveurs yi ci askan wi lañ bokk ñu bëgg nag état bi xalaat si jàppale si moo tax ñu ciy def benn assemblée générale di ci woo éleveurs yëpp responsable yëpp vraiment je vous remercie